mbokki internautes yi dal leen ak jàmm Baye Fall bu série Wiri Wiri daal dinay nag euh, génn def benn sortie médiatique boo xamante ni daanaka daf ci dal bu baax a baax ay ñoñam ña mu bokkaloon ca biir série boobu ndax moom euh, bay Fall nag ci série Wiri Wiri euh, daanaka nag mu nekkoon fa jëkkëru abi abi nekkoon fa sëru ki nga xam ne moom mooy sumbulu bàcc li moom bay Fall mi daanaka moo nekkoon nag téewoon lépp lu jëm ci wàllum comédie bu série bi ndax nag fu saa neex joué sérieux Cheikhouna joué sérieux ki nga xam ne mooy Jojo itam daal di fay jouer sérieux moom Baye Fall nag daanaka séquence yi mu def yëpp reetaan loo nit ñi foo kaf la doon def ndax nag mu gi sax munta daal di génn nag ci ab séquence te nit ci réewuñu moom Baye Fall moomu nag moo daal di def benn sortie médiatique boo xamante daf ci dal bu baax a baax Jojo naa ak ki nga xamante ni mooy sànneex ñi nga xam ne ñoom la jàpp ne nag ñoo nekk cerveau wu bi nga xamante ni mooy Soleil rawatina nag série bi Baye Fall dafa dem ba jékki-jékki li nga xam ne mooy silmaxa daal di koy dàpp muy nag ay jafe-jafe yu mu am ci biir euh, bëtam yi nga xamante ni gisatul ci nag euh, ni mu ko daal di expliquer moom nag Baye Fall ne dafa am lu ko metti lool ndax nag dafa took jékki-jékki am ay jafe-jafe ndax lu ko dab la mi ngi doon liggéey liggéeyam normal di doon am xaalisam jëndoon terrain jëndoon itam ni nga xamante ni euh, moom mooy moto bu toll ci neuf millions de francs CFA ginnaaw ñaqam moo Ah, dañoo dem ba gis ni nag moom mi ah, Baye Fall dafa am ay jafe-jafe nag ci wàllum bët ah, nee na moo tax nag li ko gën a metti bokk na si nag li nga xamante ni noonu ne lañ ko doon ñaawalee ci biir série boobu ji wiiñ wiij rawatina nag troupe bi ndax nag même ba mu demee ba joxatuñ ko sax li nga xam ne moom muy rôle dafa commencé dem tournage saabu bu déggee ne tournage am na nag ci foofee ci groupe ci troupe Soleil Levant dafay dem assister ko waaye nag saa njëkk a def mooy di ko bokk na ci Jojo Saneex ak ki nga xamante ni nag uh, moom mooy na uh, ci nag uh, di koy naan Baye Fall fan laa féete Baye Fall kaay toog nii Baye Fall ku toogee nii di ko ñaawal daal moom bay Fall ne dañ ko daan ñaawal ñaawal goo xamante ni daanaka nag daf ko metti lool te boobaak léegi nag du Jojo du na du ki nga xam ne moom mooy Saneex amul nag koo xamante ni mës na yëkkati fukki dërëm boo xamante ni nag may nga ko ci feebaram bi ngir jàppale ko ko mu mën a faju ba nag noonu la daal di nag mujjee daal di jël motom bi jaay ko lépp def ko ci faju jël itam terrain bi ko yàlla mayoon daal di koy jaay lépp mu def ko ci faju ndax nag seetaan gi nga xamante ni nag waa troupe soleil levant seetaan nañ ko ko de sax ba mu leen di liggéeyal nekk nag ci liggéeyam foofee nag am rôle ci biir série bi di wiiri wiiri nee na nag liñ ko daan fay daanaka ab gallax ndiku la ndax matu ko woon dërëm mënoon na ko lekk ci ñaari fan képp def ak leen jàppale ndax ñoom ñi daan nañ am am ay sponsor daan def ci seen poche te nag acteurs yi sax daanaka liñ ci daan am du bëri euh, dara waaye nag bëgg aar moo daan tax ñu bëri ci ñoom doon ci topp nekk ci série bi sonn ci lool waaye nag tey jii li nga xamante ni mooy ndogal dab ko ñoom ñu waroon nekk ñi jiitu ngi daal di koy jàppale mu faju nag euh, tax na defuñ ci dara ba noppi itam du kenn ku ko ci nemmeeku lu dul euh, nag dërëm boo xamante ni sax duñ ko yëkkati ko ko jox muy ñoom